salaatu wa salaamu ala ashrafil anbiyaa wal mursaliin sayyidinaa wa mawlaanaa Muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajmaiin assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ñu ngi leen di nuyu ci turu sunu kilifa Cheikh Abdoul Fattah moom Cheikh Mamadou Fadil mi nga xam ne moo yor kàddu Sëriñ Abo jiite liggéeyu màggalu Kazu Rajab teewal fi Sëriñ Abo teew ñu teewal fi Cheikh Mahamadul Bachir ak mboolem njabootu Cheikh Mahamadul Fadil te Cheikh Mahamadul Murtada ak i rakkam yëpp jox ñu ndigal wax ne nañ jottali ay kàddu yu gàtt yoo xam ne dafay jëm rek ci fàttaliwaat dayo bi nga xam ne màggal gi am na muy màggal goo xam ne day màggaluk lislaam di màggaluk Cheikh Mahamadul Fadil di màggaluk mën nañu wax ndax sax humanité ndax dafa so taxaw ci bis boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf cee amoon teraanga joo xam ne am ci mbégte moo xam ne am ci wàccuwaay boo xam ne borom bi subhaanahu wa taala mësu koo defal kenn muy bis boo xam ne itam borom bi subhaanahu wa taala daf koo tudd ci alquranul karim jagleel ko sax aw saar muy suratul israa mu doon kon bis boo xam ne xew-xew bu mag daf ci amoon ndax ci lay borom bi subhaanahu wa taala riñaane woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéege ko yéege ko ba mu àgg fa ko soob mu jegeel ko boppam jege goo xam ne kenn mës ta jege noonu yàlla subhaanahu wa taala ci bisu rajab bi jox ko fa taraanga joo xam ne itam dafiy des ba ba àddinay tukki muy xéewal goo xam ne daf koo indil aw xeetam te mooy julli juróom julli juróom mooy keno bi gën a am solo ci lislaam ndax wax na ne mooy ponk bi nga xam ne moo téye mbaarum lislaam mënu ci ñàkk ci guddi gii la ko borom bi subhaanahu wa joxoon yonent bi sallallahu alayhi wa mu wàcce ko ci aw xeetam mu ci yërmandeem itam mu woyefal ko ba mu doon juróomi julli Cheikh Mouhamadul Fadil daana ko leeral di ko taqale di ko jàngale ba ñëpp xam ko wax ne juróom fukk la woon waaye daf ko wàññi ba nga xam ne dafa doon juróomi julli juróom fukk yooyu tam manees na ko dugalaat ci biir juróomi julli yi ci ku coobarew muy naafi ay ay ay nawaafil waaye nag ku ko def ni nga ko waa war a defee sunu borom dana la jox yoolu juróom fukk yooyu mu joxe woon te danga nga xam ne jëfe ngi borom ndigalul borom bi subhaanahu wa taala te ku jëfe ndigalam rek la bëgg mu doon bis boo xam ne itam cheikhuna ahmadul xadim radiallahu anhu daf ko fonkoon ba bind ci ay xasaayid yu baree bari yoo xam ne daf ko tënkee yow mu rajab bokk na ci bi ci gën a siiw mooy bis bi nga xam ne yaa faadilan faddalahu alxallaaxu yaa man bihi faaraxani imlaaxu nga xam ne dañoo wax ne bayit yooyu yow mu rajabin la ko sëriñ bi tënkee waaye noonu dañoo wax ne Cheikh Mahamadul Fadil loo ko Cheikhul Xadim jagleel mën na caa wax rek wenn bayit woo xam ne yaa man bihi faaraxani imlaaxu kooku set mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mooy Cheikh Mahamadul Fadil ndax sëriñ bi nee na ko bi ma la amee amatuma lu ma mënta ñàkk bi nga taway naa maalahu nashtaqu salla alayka al akramu al xallaaqu nee na li nga xam ne moom lañ mébétoon nga xam ne dañ ko doon dañ ko doon ne woon siiwee dañ ko doon gëstu di ko yàkkaliku di ko seet fu ne ci yow lañ ko amee yow yow mu rajab te kon mooy yow Cheikh Mahamadul Fadil yàlla baaxee na ci nag moom jëmm ju tedd jooj yi mu wàcc ci bis boobu bii ñu di ko fàttaliku mu doon fàttaliku boo xam ne sant yàlla la waaye fàttaliku borom bi subhaanahu wa taala la fàttaliku ndigali borom bi subhaanahu wa taala Cheikh Mahamadou ci jagleem itam mu àggaleel sëriñ bi jumaay Touba te ju te bisub rajab bi mu gane àddina ci la waxtu julli yi juróom wàccoon mu àggale jumaay Touba doon imaamu jumaay Touba di jiite jumaay ajjuma di julli waxtu yi juróom itam saa bu ko fekkee Touba mu koy julle ci ci ci ci jumaa ji wala mu nekk biir këram di ko fa di ko di ko di ko di kon ñu xam ne bis bi dafa dafa dafa méngoog moom ci wàll ci wàll yëpp sëriñ bi wax ne na kon bu ñëwee nañu fàttaliwaat wax ne bis boobu ñuy ñuy ñuy ñuy waajal di ko di ko teeru day bisub lislaam boo xam ne ñëpp ko bokk jullit yi ba yëpp ko bokk bisu bisub Cheikh Mamadou Fadil di bis bu màggee noonu kon ñu xam ne bis boo boo xam ne ngëneel yu bari daf ca daje ak xewal yu baree bari ba tax ne njabootam gi nga xam ne ñoom lay def loo liggéey bi bu jublusee ngir xam dayo boobu ak màggaay googu dañ ci def ay waxtaani diine bis ni ki tey incha allahu wala suba danañu tàmbali bis bu set danañ def ay jataayu diine yoo xam ne dañ ci waxtaani ndigal di borom bi subhanahu wa taala ngir ñu mën koo jëfe di ci fàttali ay tereem ngir ñu man koo moytu di ci fàttali njàngaleem Cheikh Mouhamadul Fadil di ci jàng alquranul karim di ko ci ñaanal di ñaan ci barkeem di ci jàng xasaayidu Cheikhul Xadim yi nga xam ne génnul tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak julli ci moom ak kañ ko bu bis bu ñu demee ba ne gannaaw suba la itam danañ am jataay bu mag bu ñuy def ci buntu ko Cheikh Mouhamadul Fadil nga xam ne seeti sëriñ bi ñoo koy ñoo koy ñoo koy ñoo koy taxawee at mu jot itam dañu tànn benn tomb boo xam ne bu yitteel nit ñi la ñu di ko waxtaane ren yàlla dogal ñu tànnoon xam tolluwaay bi nga xam ne xam-xam am na ko ci wooteb cheikhul xadim bi yàlla dogal cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ bi waxaat de wax ndigalam yu kawe yooyu mu wax wax dafa bëgg a liggéeyal sëriñ bi ci xam ñu bëgg kon bu waxtaanee solo si nga xam ne xam am na ko ci diine am ko ci yoonu murit taxawaay yi ci cheikh Mouhamadul Fadil daan taxaw moom doonoon boroom xam-xam bu mag boo xam ne wàll yëpp lañ xam ci moom waaye googu wàll it bëgg nañu gën ko cee leeral ba nit ñi gën koo xam doonoon bindkat bu mag doonoon ku fonkoon nit yàlla yi doonoon ku fokkoon boroom xam-xam yi daan soññi nit ñi ci jàng xam-xam daan leen dimbale taxawaloon ay daara yu baree bari yoo xam ne moo ko daan doxal ci jëmmi boppam la ca war lépp mu di ko ci def wut ay jàngalekat ñu nekk fa jëloon ay nit sax di leen yóbbu bitim réew ñi jàng ngir yokk xam li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne sàkku xam-xam jaar na dem ba Chine loolu Cheikh Mouhamadou Fadel du ko jëmmaloon bari na mbooloo moo xam ne tey ñi ngi ci réew mi doon ay boroomi xam-xam ñu di leen tudd ñuy jàngale ci université yi di jàngale diine di def ay liggéeyi xale yu nit di jariñoo Cheikh Mouhamadou Fadel moo leen yóbbuwoon bitim réew ñu jàng ñooñee na kon loolu bëgg nañ ko gën a waxtaane waale ci guddi googu yi bokk na ci itam ay taxawaay yi ñu def yoo xam ne jokk bokk lay doon ndax Cheikh Mouhamadou Fadel ku ne xam ne diggam ak bokk yi ku ne xam ne diggam ak ak lislaam ku ne xam ne diggam ak njabootu Cheikhul Khadim ci ndigalu sëñ Abdul Fatah moom itam ci ndigalu Cheikh Abul Baraka mi nga xam ne moo moo moo ko moo ko jox moo ko teg liggéey bi ci loxoom mu jox nu ndigal ñuy def saa bu ñëwee ñu tànn ñenn ci bokki sëriñ bi dem fa def fa ay jataay waxtaane fa xam-xam waxtaane fa bokk fedd liwaat fa bokk suuxataat fa kóllëre tànn ñenn itam ci kilifa yi nga xam ne ay mag lañuy àndoon ak sëriñ bi ñu demaat ci ñoom fedd liwaat kóllëre googee dundalaat bokk googee ren ñu tànn ci sëriñ Ibrahima Bousso ak sëriñ Mbay Sall conférence bu mag bi nga xam ne nag moom la ñu def ci sët yi di ko taxawee muy jotaayu xam-xam bu mag boobu ñu tudd ko Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine ku nekk xamoon diggam ak Cheikh Mamadou Fadil nekk xam taxawaayam ci yoonu Cheikh Ahmadou Khadim am na bu ñu bëgg a def itam xaaxira ci kër sëñ Mouhamadou Moussa Falilou moom itam ku ne xam ne taxawaayam ci kër Cheikh Mamadou Fadil ku ne xam ne taxawaayam ci màggalu Kazu Rajab nga xam ne ba mu ko tàmbalee moo sëriñ bi naka jekk ak Cheikh Mamadou Mourtada ak seenu njaboot ñoo ko daan taxaw kon sëriñ bi wax ndigal ne foofu itam nañ fa def ab jotaay boo xam ne dañ fay feddali loolu bis bi nga xam ne moom lañu ubbi nag moom dañ koy ubbee ndindi ndax ndindi mooy jat kër gi nga xam ne moom la Cheikh Mahamadul Fadil njëkk a sanc ci turu Cheikh Mahamadul ci turu ci ndigalul Cheikhul Khadim 1913 nga xam ne téeméeri at yi topp na Cheikh Abdoul mii nekk fa ak i rakkam nekkal fa sëriñ ñu bëgg a ubbee foofa màggal gi jotaay bu njëkk bi foofu lañ koy def danañ dem itam Madina Mbooba nga xam ne mooy dëkkub Cheikh Abul Baraka moom Cheikh Mahamadul Fadil naka jekk at mu jot dañ fay dem def fa waxtaan moom itam ci waajtaayu màggal daaru salaam gi nga xam ne nag sëriñ bi moo fa daan demal boppam nga xam ne moom wax nañ ne ca tàmbali ba daf daan def bu guddee mu dem fa seeti mbokkam ma wala réew ma Cheikh Mahamadul Maamoun nee nañ fa lay fanaan xëyee su nga ñëw jaar ko sëñ Afiye Ñang mi nga xam ne moo moo moo moo mooy mbokkam ci Touba loolu itam sëriñ bi ci ndigalam jox nañu digal ñu dundal ko kon daal ci gàttal loolu la sëriñ bi waxoon ne nañ ko jottali li ci des Cheikh Ahmad Rifa moom itam dana wax ci turu sëriñ bi jottali cantam jottali jottali jottali li ci li ci des wasalaamaaleykum wa rahmatullahi